daleen ak jàmm Maguette Diouf di doom ci maître El Hadji Diouf dégg na alxayri maître El ki mu may doomam bu jigéen bi du kenn ku dut na natango avocam bi di wuyoo ci turu maître Cheikh mu mel ni mariage ñaari doomu avocat ngay am foofu oh ndaw couple bu graw te nara xumbu avocat baro bu ndakaaru bi bëggoon na defal doomam ju jigéen jile cérémonie mariage bu rëy waaye mu mel ni coronavirus ba ko ndaxte jamono ji bépp rassemblement dañ koy tere ci mim réew xeex covid 19 bi di lee waral ba rek ñu daat koy def ab mariage bu simple boo xamante ni ñaari famille rek ñoo ca teewoon ndax kat ñaari xale yi ñoom yàgg na noo bëggante te umbud woon seeni waajur maître El Hadji Diouf nag ki mu bàyyele doomam ji du kenn ku dut Moussa Fall di rak ci moom nekk ab conseiller bu présidente di conseil économique social Moussa Fall nag mi ñu bàyyele xale bi àndoon na mbégte ak contentement da dina fay sax delloo njukkal bu baax baax kii di yaayu di awop metre El Hadji Diouf mi nga xamante ni jugut benn yoon ci di def lu rafet ngir boole famille Diouf yépp ñu nekk benn rédaction bu Tactic TV ñu ngi leen di ñaanal sëy bu barkeel la